te di leen dalalaat ci seen chaîne bi nga xam ni moom mooy Tivaouane 24 TV di tàmbalee nag sunu émission bi nga xam ni yàggoon nañ ko ànd ak yéen gàmm gi taxoon ñu xawoon a pause nekkoon ci liggéeyu gàmm gi waaye ñu dellu siwaat ci ak yéen ci émission bu am solo bi nga xam ne seqoon nañu ko ak yéen muy émission diisoo tabaarakallah di nuyu xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour yàlla na yàlla yàggal ko fi yàlla yàlla wéral ko ba naal yi mu naal ci kër maamam maam Cheikh Seydil Hadji Malick si yàlla may ko ak kattan ak fekke ba mu mottali ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rakkam Serigne Maodo Sy Dabakh Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz Serigne Mansour Sy ibnu Alhaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh ñoom ñëpp yàlla yàlla kàttanal leen yàlla yàlla dëgëral leen yàlla yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen yàlla guddal seen fan ngir yàlla ak seen taxawaay bu rafet ci kër Seex Alxaaji Malick Si waaye di nuyu sëriñ Moustapha Sy Al Amin waaye di nuyu suñu mbokk ya ca Touba sëriñ Muntaxa Basiru Bàkke ñoo ngi koy nuyu di ko sant di ko ziyaara di ziyaara waa Touba yépp njabootu Seydil Xaaji Malick njabootu sëriñ Touba gi di nuyu tamit waa Canaba tabaarakallah suñu papa xali général bu Canaba di serigne asan sek waye mbollem kilifa dine yi cheikh mahi ñas ci kaolax ak mbollem fu kilifa nek rek ci senegal njegen njegen yek laye nek ñep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax ci Tiwawan 24 TV sen émission bi nga xamni mom moy diso di sen émission préférée tabarakallah euh lata ñuy continuer nak waxtaan yi nga xamni mom lañ fa seene sekk ak mbokk internet yi ñi nga xamni ñonu baaxo diñ ci top Euh, dañuy nuyu nag suñu benn partenaire boo xam ni tabaarakallah euh, lu ñu leen wax rek ñun njariñ la buy jëm ci yéen te duñu leen wax lenn loo xam ni lit du ay njariñ muy Serigne Cheikh bu Al Amin Serigne Cheikh Al Amin nekk koo xam ni dafa yëngu ci wàllum ñaan euh, di yëngu ci wàllum seet ak di faj yu mel ni ay tëleeg yeneen yeneen yeneen yu bari daal yoo xam ni képp koo xam ni am nga problème ci yooyu boo jokkoo rek Serigne Cheikh Ba Al Amine euh, dina leen defal numéro bi euh, di di di ngeen ci am satisfaire incha allah mbokk yi nag tey tabaarakallaahu ñu fas yéenee waxtaanee lu am am solo ndax réew mi dafa toll foo xam ni dafa am yoo xam ni dañ koo war di waxtaane ndax réew mee toll ci waxtaanee. xali general des tidiane serigne babacar si mansour dafa jël ci gam gi nu genn tem ni wa khulu lin nasi husna moy tem wa khulu lin nasi husna nak moy lan de len wax ci nit ñi lu bax mu def ko tem yalla ñu yalla fayal serigne babacar si mansour ndax nak xam bi mu xam fi senegal tollu jamono ji motax nak mu tan lolu Sénégal jamono ji soxla nag na ñu waxtaanaat bu baax a baax a baax ci wàllu wax lu baax jëmale ko ci doomu aadama yi léegi Sénégal yàqu na moo tax nag Serigne Babacar Sy Mansour ku jara ñaanal la nag ndax nag toujours dafay basé wu ci li nga xam ni moom la Sénégal soxla ak lii problème bi mu di ci sukkandiku ngir lan bëgg rek Sénégal bokku ci réew yi gën ci réew yi yàlla ni inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu kenn ci yéen buy def jëf na fexe ba jëf bi muy def na rafet wax ja tamit na rafet ndax lépp la ëmbaale waaye jamono ji jëfatuñ ñun mu rafet ñun sénégalais yi waxatuñu mu rafet rawatina نك تي ريزو سوسيو yi yàqante gi nekk ci réseaux sociaux yi comme léegi dañ ni leen yàqante moom mooy maye tiyaaba ab jullit war a xëy suba ba ngoon di nekk ci loo xam ni dafa koy may aljana yi ëllëg war a nekk ci loo xam ni dafa koy may teraanga ci lu ci ci lu dagan waaye léegi ñun dañuy xëy di wut nu nu waxee lu ñaaw lu ñu yàqee deru sunu mbokkum jullit te yàlla wax ci alquran ni laa tuzhirul fawaisa maa zahara minha wa maa batana bu leen siiwal ñaawteef yi moo xam nag bi feeñ laak bi nëbb yépp teye leen ko ngeen dëgg ci seen tànk ndax yow sa problème bi problème bi nit ki am ak li nga xamal nit ki ba naan yor naa ay preuve ci téléphone wala nangam sàngam ba nar koo siiwal yàlla xamal na la lu ko raw ca siiwalu ko. moo tax nag ñun lenn doo nga ñu war de ñun kese mooy li nu yàlla wax ni wa ahsin kama ahsana allahu ilayka rafetalal comme ni yàlla rafetalee jëmale ci yow moom mën war ndax yàlla moo nu bind mënoon mënoon a jël responsabilité bu ko neex ci ay jaamam waaye yàlla dafa rafetal ci ñun mooy lan chaque jour mu xamal ñu lu mu man ni fang ni bi diw bëccëg waaye du ko def ngir yàlla ak suturaal jaamam yàlla nag suturaal googu mu suturaal jaamam bi nag yow jaam bi war na ci sa mbokkum jaam nga suturaal ko waaye ñun nag ñun Sénégal bala ñoo am lu ñu neex rek danoo yàq nit ki dugal ko ci réseaux sociaux yi heure sàngam tey damay kaa damay damaa am direct ñëw leen ma wax leen ci diw diw moo def lii moo dugg fii moo def nangam allahu akbar te boo jógee yow la ñuy gisaat ca programme mu diine ya nga dem ca kanam ca gàmm ya di la gis ci conférence yeeg màggal yi te yow nag fu nuy waxee lu ñaaw yaa cee jiitu sénégalais yi nag moom li nu bëgg ki nu bëgg seetaan bëgg la di la gis mooy kiy wax lu ñaaw ki dàq jël lu ñaaw ki dàq yàq der ki dàq wuññu ayibu doomu aadama yi kooku lañ gën a mën a valoriser. mag ñi dañ daan xëy di waxante lu baax di defalante lu baax di séqante lu baax ñi nëbbalante ay ayib di suturaalante ngir tënku ci la yonent bi wax ni man sataral muslim satarahullah waaye ñun bala ñoo am lu ñu neex rek dañoo génn ci réseaux sociaux yi di yàqante tontonte bi mel ni ay waaye man nag bi ma ci gën naqari ci wax ju ñaaw ji ñuy wax jamono jii ak yàqante gi am ci réseaux sociaux yi mooy gënu jël jëmale ko suñu kilifa diine yi yépp nag man bobo ma ci gëna nakari ndax yakante gi bari na waye nak legi kilifa yi kenn joxatu len teer bu ñëk yow mi bok ci benen tariixa nga nekk ci tidiane wala nga nekk mourid bo juumee sax ba wax lu ñaaw jëmele ko ci benen serigne bo xamni ni ko mom tariixa du sa serigne da nga koy tuub ndax yaa ngi tiit martaba serigne bobu laal la waye legi yow yaay sangu ba set laal sa parfum jël sa telephone defaru ba jek jël sa telephone di nag sa bopp rekk ngir wax lu ñaaw kilifa diine kilifa jàmbur lu nekk nga yàq ko ko te wallaahi kilifa war naa war a mën a juum sax ñu xool nañ ko defee ba lépp rafet ngir yàlla ak xormaal ko waaye xormaal ka tax nit ñu topp ko waaye jamono ji yàq nañu lépp xorma gi amoon senegal benn xorma amatul réseaux sociaux yi lépp yàqu na loolu yëpp nag xanaa di ñaan yàlla rek tey jéem a góorgóorlu yàlla muccal ñu ci ndax nekk na mbir moo xamante ni dem na ba réglé ko pour mu pour mu jeex ci senegal yombatul ndax dafa dem ba ëpp loxo dañ koo bay bayal ba mu ëpp loxo léegi ngay gis ci senegal nit tagg nit ànd ak nit ci intérêt tag nit ki lu fuf ba ñepp xamé ko nit ko ba ñepp diko dakantale diw mu diw diw dafa bax diw dafa yaatu diw dafa yiw diw dafa yaru diw dafa tabé waye mu xey suba seen digënté am ben ñagat ñagat wala la taxoon mu diko top ci walu internet gisatu ko mom mi togon ci internet bi togon ci télévision bi nan diw dafa bax mom moy gennat togal ci bi internet bi nan diw manam lam waxon yépp contraire balay wax diw baxul diw gorewul diw nangamul diw nangamul léegi yow koku yow yow mi togon nan diw dafa baax wat tay suba nan diw baxul diw dafa bon yow est ce di nga waxati lu nit mala deg est ce di nga waxati lu nit mala gem ndax la nga toogoon démb wax ko ya tok tay weddul ko sa bop te ken xam la dëgg loolu yépp nag mi ngi ci senegal nañ defalat jikko yi nañuy and ta yalla tax gis nga lakh dari yu sax bokoy jang dañ ñi la daba lewu booy boo booy mer sax na yàlla tax mooy tax la ngay nekk di mën a dugg nga ciy mën a am yàlla wa yarda lahu booy gërëm sax na yàlla tax kon nag booy ànd ak nit ki àndal ak moom te yàlla tax waaye ñàkk ànd ànd bu yàlla bu yàlla tax moo bu yàlla tax moo bëreetul moo tax toujours nga gis ku tàgg nit suba mu xëy problème am mu xas ko ndax la mu àndoon ak moom ci intérêt boppam doomu la ko wéy yàlla nañu yàlla musal nag ci jëf yooyu dañuy wax lu rafet di ko ci ci nit ñi gis nga lu rafet dafa bax nit di nga gis lu ñaaw sax rafetal ko bu mu yiw ta dina tax nit ñi naw la ndax yalla loolu la bëgg nit ci sax rafetal ak ci sax def lu bax ci la la yalla ci la la nit ñi di nawé gis nga bax boko défé nit ñi dañ lay bëgg nit ñi dañ lay naw waye am na jëf yo xamni boko défé da ngay dal sa bop fo tok di wax lu ñaaw ci nit ñi fo tok di sosal nit ñi di yàq nderu nit ñi di sa gémmeñ dem ba yow bu ñu bu ñu bu ñu lay tudd lu ñaaw lañ lay dàkkante leen yàlla nañu yàlla musal ci loolu yàlla nu yàlla sàmmat yàlla nu yàlla aar yàlla nu yàlla defar te loolu nag bokk na ci jikkoy ku dul wax dëgg mooy jikkoy fenkat ci niñ ko mën a waxee ndax euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ni maa ngi leen di moytandikuloo ngeen di wax lu dul dëgg ndax boo iyaakum wal kasib fa fa innahu yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan naar maa ngi leen di moytandikuloo fen ndax fen daf lay jëmee ci mbon te mbon ca lam lay jëme mooy safara motax mu ni ma ngi leen di moytandiku fen waye nak mang leen di denk tamit ngeen dëggu daf dëggu daf lay ilal birri ci ta tawal birru yahdi di ilal janna ta bax moom mo lay jeme ci aljana kon bax rek am solo ta bokku na ci nak li waxe sax li wone yow nit nit ku bax nga moy fo waxe rek yëkkati sa kaddu ñu gis ni li ngay wax lu rafet la li ngay wax lu bax la ndax nak lamme day wone la nek ci sa bir xol bo day wax lu rafet rek borom xol bu sel nga sa làmmiñ bi day wane la nekk sa biir la nekk sa biir xol sa làmmiñ bi daf koy wane kon nag yàlla lu yàlla def ay nit yu dëgg te nag nit dana wax lu dul dëgg wax lu dëgg ba ñu bind ko indallahi kazab maanaam ba buñ koy rappel ci ci yàlla malaaka yi di tudd turam dootuñu tudd diw de sa tur wa nga amoon dañ koy fàtte bu fekkee daaw doo wax dëgg dem ba ñu nome la bind ni yow kazab yow ku dul wax dëgg nga bu boobaa di nga dem ba bu ñu lay rappel foofu fenkat bi la wax loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal waaye nit dina wax dëgg it ba dëggu ba dem ba bu ñu koy rappel it ku dëggu ki la ñuy wax yàlla nu yàlla boole ci ñooñu ci ñu ci ci ñu dëggu ñi loolu nag jamono ji yàqu na fenn amatul jàmm coow li bari na ku nekk di xëcc di jëmale sa côté. te lu ëpp ci suñuy def ak suñuy jëf yàlla taxul loolu nag dafa jar ñu di ko waxtaanee defaraat jikko yi defaraat kër yi wax ju ñaaw yàq na kër yépp jëw yàq na kër yépp moo te jëw nag lu jar a moytu la ndax ayuhibbu ahadukum an yakula lahma lahma aqihi mayitan fa karihtumuhu yàlla ne ndax kenn jiyéen bëgg na di lekk yàpp moroomu nitam ñu ni ko mu ni bañ ngeen ko te nag yow mi tiim nit di wax ci moom di ko jëw mi ngi mel ni yaa ngi tiim sa mbokku nit di ko di ko lekk kon nag yàlla nu yàlla musal ci ñuy jëw Sénégal gii réew la Serigne Cheikh waxoon ne réew mu war a sangaat la loolu mooy lii dëkk Sénégal dañ ko war a sangaat ndax coow yi bari na dem nañu ba héritage bi nga xamni mo nekkon ci sunu kilifa diiné yi fi jaaroon muy suñu mak ñu tedd ñi dem nañu ba loolu yépp naxasaay la sunu mak yu baax yoyu tay ji bu nu dellu siwaatoon du ñu xamé ni ma ndax sénégal bi ma woon ak bi ben la ñu ko xamé ndax lépp lu fi bayyi woon sank nañ ko kon yalla yalla ci loolu li fi mak ñi bayyi woon ndax li fi mak ñi bayyi woon nak moy dëkk tax ñoom ci dëgg ak dëggu dong lañ doon dox bu wuy ji seen borom yàlla nu yàlla tas ci seen barke da ngay dugg ci kër sax ndeysaan fekk fa ay doomu baay ñaar ñoo xam ne ñoo bokk benn baay te bokku ñu yaay eh. duñu duñu duñu laalante chaque jour coow guddi coow bëccëg gis nga doomu baay bu kenn dox ci seen digganteeg nekk benn gis nga sa sa yaay ji la jur bokkook moom dara sa papa ji la jur bokkook moom dara ndax tey bu ñu la fekkee ni la yow sa yaay loo bokk ak moom amoo benn réponse booy réponse booy répondre bu dul moo ma jur moo ma jur nag taxul ngeen bokk dara de sa papa ji la jur tey bu ñu la fekkee ni la yow loo bokk ak sa papa amoo benn réponse booy réponse bu dul moo ma jur waye tay nak sa doomu baye bi nga bokkal benn keur bu ñu la lo bokk di nga mëna joxoñ ni kat ñoo bokk suñu baye je kon ki nga bokkal benn geño nak war nga ko fonk war nga ko respecté gis nga bu kenn dox seen ak seen doomu baye bu seen yaay ji dox seen diggante ak seen doomu baye bu seen papa yi dox seen diggante ak seen doomu baye bala nga xamni doomu baye a neex nga nek ak mom ci jamm ngeen sekk jamm ba bis dik yalla na tolam mbir bañu ñu taxawu la bu boba ngay xamni ne neex waye doomu baye mo neex kon bu kenn dox seen digënté ak doomu baye li nit ñi di wax amul légui tass nañ kër yépp ay doomu baye yu yu yu and légui aka jafé ci Sénégal ay doomu baye yu nekk benn aka jafé amna am mais aka jafé yalla nu yàlla boole suñu doomu baye lolu moy li dëgg yaakaar naa ne nag émission bi mi ngi bëgg guddu sax tabaarakallaahu tey dañ doon dikk rek ngir fàttalante ci wàllu jamono ndax jamono dafa doy waar te jamono nag bu doyee waar képp koo xam ni am na foo xam mën a jaar pour fàttalanteeg nit ñi ngir xel yi mën a dellu dellusiwaat rek da fa war a jaar ngir ñu fàttalante waat delloosiwaat delloosiwaatante suñu xel ndax fa zakkir fa inda zikra tanfaul muminin yàlla yàllaa ko digle ci alquran kon nag loolu dong moom moo waral ñuy def li ñuy def ak bi ñu koy defee. yalla yalla may ñu ñun ñepp dégg ak top tambalé ko ci ñun ñi nga xamni ñun ñoy wax yalla yalla yàlla defal ñu lolu yalla defal Sénégal jamm def fi jamm nit ñi di waxat wax yu rafet digënté yépp baax ñepp seq jamm politique bi yalla def ci jamm ndax momit bokku na ci li gëna yëngu fi nga xamni fa lay wax ñu ñaaw yi gën di jubé jamono ji politique bi ci la bokk mom motax nak yalla yalla wi sa ndox bu sédd yalla yalla yàlla téewaat gémmiñ nga xamni duñu wax jamm duñu wax lu baax waaye gémmiñ ñiy génn di jariñu askan wi tey wax lu baax yàlla yokk seenu kàddu ba ku nekk man cee dégg man cee jariñu Tivaouane 24 TV gi noonu seen émission bi nga xamante ni moom mooy diisoo ngeen di ci ànd ak seen bokk seen xarit Pape Omar Kéré ñu jox dig daje beneen yoon incha allah ci seen émission bi diisoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.